Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est du rêve. On va vous vendre du rêve ce soir. Du jamais vu, restez devant votre propre téléviseur. Ah, oui, comment, quoi Hey, ils sont deux. Bonjour, bonsoir si vous êtes à l'international. Bienvenue sur la TFM. Bienvenue Bravo Télévision One Nation. Excited comme le microphone ce soir, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous présenter un groupe mythique. On les présente plus. Ils ont scié le monde. Ils sont deux, deux génies. Nogodi, a.k.a. Salim MC, Father Freddy, a.k.a. L'homme la voix d'or. Faites du bruit pour Sarah Family. Latyr Family na bay na bay loxo yi waa waa loxo yëpp loxo yi yeah the Latyr Family hey hey yeah It's a little one evening. What is a Christ? You never take the undertaking. What is a Christ? The man who's up inside your family. What is a Christ? You need a man who wants to come in. What is a Christ? It's a little one evening. What is a Christ? You never take the undertaking. What is a Christ? The man who's up inside your family. Sénégal bi ñu def nii lu ne bis mu ne ku ne di jéegu def loo atanul ku ne maa fi mën ngan bu dut asamaan sa kaw sa asamaan nekk ci def loo mënul bu nekkee di pocce bu demee di sànce te daloo gën a mën a baax li nga mën a jënd si biir ngay onke sàcc li ñu nga di wane sëñ yëgal sa niveau di wane nga mëne dëkk di bu gën a duma sëkk yaa gën a xone di wane loo amee amuloo buur ci sa waxin nga wane salaam yi nga baxe oto bu naaj gën a yaa ko fi gaare sa dënd nga boppe di bëri di gabe nga faratal yow di jaay foo dee Yo nan ga te ta la te in Nan go le te Sa se moi sa dam gañe fësal xiif wala meram buy dox dem dem si Nanga tete ada tekin Nanga manusia bisa dormali Lah solo ko suñu xale yi nga bëgg kaa ma jóge yaa ngi soog a ca fresh vacances bu jóge États-Unis biir club Qatar jëjë wane gis bi daw ko ne ngi yëpp ba doo gis bis bi wane bos ka yaa kii di ko si biir jaar fekk yaa gën a riche bi dégg leen mu toll la fan si kaal dam na ko si kaal di mu kii di moom di teen di jaay saal ชีวิตคนไม่มองมองไปซ่าชีวิตทำไมโดนเสียยาไปยอมที่ไปซ่าว่าจะเสียเดมาสวาเองเดมาฟาเองที่เด็กจะหาไม่ยึดเส้นไม่พอในชาติเดมาสวาเองเดมาฟาเอง You better humble yourself before the church man. You look like Sakomi. Tell him anyone anything. You're not gonna take the other. You're the love when you always have for me. And it's only one every week. God takes out that taking. What is it? The love man is so easy. Yalla bi fa ñu nekk di sikar xew xewu jamono moo di wikar xafu ñu xolam jamono suuf waay na booy tàcc leen bu baax s'il vous plaît. mesdames et messieurs. merci le duo. Ndongo Dji Fada Fouye di mais. gars yi Sénégal soxla na leen foog ngeen ñëw nuyu aussi foog ngeen ñëw toog fii jàkkaarloog waa Sénégal mesdames et messieurs permettez-moi bien sûr de vous présenter ce groupe mythique. ils ont fait quand même les cinq continents. Seul Fada Fouye di Ndongo alors je vous rappelle avec euh, après une longue tournée aux États-Unis là ils ont fait l'Afrique l'album School of Life, 16 titres, et sur le marché national aussi. Et aussi, retenez bien, le groupe BBC Oz dafa naa doolu doy na waar BBC gars yi dama leen bàyyi ngeen nuyu téléspectateurs yi. waaw jaajëfate waa TFM jaajëfate surtout euh, tout le peuple toute la population. de partout tous les gens qui supportent le Daaraji Family tous les gens qui aiment la musique qui aiment le hip hop ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant Ndongo Dee. yow Fada tell them. yow salaamaaleykum salaamaaleykum Fada Freddy Daaraji Family l'histoire continue la famille est toujours là Africa ca kaw ca kanam. gars yi tàccu leen tàccu leen bu baax s'il vous plaît alors xam ngeen ni dafa parce que li ñuy wax. Sénégal dañu soxla repère dañu soxla référence yàlla def na ñu ngi fi ba léegi ñoom ñoo tàmbali bu dara doonul dara ñu teg fi dara xal yoon bitim réew lënd mën na lool waaye ñu dellu si déey yi fi nekk lu wolof njaay di wax naan ku ñeme daan laa déey dañu déey ñi fi nekk defe naa ne parentel yi xale yu màgg xal yi wala wuutu ëllëg ñi nga xamante ne ñoo def hip hop am nañu référence dama bëgg s'il vous plaît yéen ñi fi nekk fans yi ngeen tàcc bu baax ces deux